والأبيب والإمام والدليل براء بديع من خير جماع وسنة وخدوس عن خير كمال كان نبي المنتقى محمدي خير الورى المختار عند سمدي كان نبي المنتقى محمدي خير الورى المختار عند سمدي يلا يا عليم أنت لاو ويا خبير معلول أسباو أبليا من لدنك ما نعيبو يا من له الأمور أنت ربه والتكفنا ونجنا والتبنا وكن لنا وأبلنا يا ربنا بأرمة الآد عليه سليا وسلما في سبي وكن ليا لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجارا في البرايا woyofal ci Moustapha waaye dañoo bëgg a bàyyi ba ñëpp ñëw te sëñ Dame Diané moom recherche la waaye nit ñi xamuñu ko gis nit ñi sénégalais dañuy am loo xam duñ ko xam démb démb la ko daam wax mu def ko démb démb xam nga loolu lu yéeme la te wolofal yi man mi ko dégg xam naa ni borom xam-xam dëgg mooy wax yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla def mag ku ku am solo la ci réew mi Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum dafa ma soxlu am solo defe ne saay saay sépp xamante nañu waaye ñu baax ñu xamanteeguñu ñu baax ñi dañoo war a xamante ñu ngi sant sëñ Cheikh Touré bu baax a baax sëñ Cheikh Touré sëñ Cheikh Touré sëñ Cheikh Touré mais indi fi ndox mu bëree bëri ak glace gu bëree bëri yàlla ko yàlla fay yàlla na ko yàlla fay jërëjëf sëñ Cheikh kon ñu jox Baye Moussa rek mu tëjal ñu jotaay ñu ngi nuyu nag bu baax baax waa dëkk bi comme ni ko sëñ Xaadim waxee sëñ Daam Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax ak sëriñ Ndiaye ak Serigne Ndiaye ak Baye Lay Seen ak Baye Serigne Seen ñu ngi leen nuyu bu baax a baax te leen ziar yàlla na yàlla defal leen jàmm lu yaato yaatu barke Cheikh Amadou Khadim Baye Moustapha bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku ne. ci sa tur ak sa sant. di baal àq ñëpp. di balu àq ñëpp. cant gi nag sunu boroom lañ ciy jiital. ndax lépp mooma. ginnaaw buñ ko santee ba noppi. teg ci nga dim def sallallahu alayhi wa sallam teg ci sant Sëriñ Tuuba seen la gannaaw loolu ñoo ngi sant mbooloo mépp mépp ak foofu waay jóge rawatina nag dëkk bii ñi ak ñi fi dëkk xam ne fi lañ tax dem ñu fenn fi lañ tax kër yëpp bàyyiwuma genn kër rawatina jigéen ñi ci ba seen bopp ndax ndax seen taxawaay ñëpp dégg nañ ko rafetlu nañ ko ñoo ñoo seen kilifa yi góor yi ñu nekkal kon nag ñu ngi leen di baral seen cantu bopp tey ñaan sa borom mi nga xam ne moom lépp ci loxoom la ne yan nañu am ak cantam nun ñëpp te te mucc ci meram ak la koy waral te mucc ci saytaane ak liggéeyam ak ñoom ci àndal ñépp ah gannaaw si loolu nag ah nun day wax sax moom dañ ko du def lu bari waaye li nga xam ne moo nekk ci ci fi nun dañ parce que yéene te ñaan tam borom mu jàppale nu ci na mag ñee daan doxee te leen te xam te man ko moom lañ fas yéene doxe sax ci ndigalal sunu borom yi daw tere mi lu luñ man bokk yëpp nu def leen ne suñu bopp dëkkandoo yëpp ñu def leen suñu bopp luñ ci mën a dimbalee nit def ko te yàlla tax luñ ci mënul dimbalee nit itam ñu xam ne la yàllaa ko dogul waaye ñu fexe ba lor lor bañ a jóge ci ñun jëm ci kenn beneen temps borom doole dimbali ah cant gi tam ñii nga xam ne ñoo sos daje bii muy gone yii dëkk bi tàmbalee ko ci maam Ballam yi mii ak mboolem ñu ko bokkal. ndax moom njëkk wax ne bàyyi tafaa ma ne ko mbàkke mu ne man damaa gént gis sëñ bi mag mu ne ma armeel yii de ku ko defar da nga ndax ju baax a ngi fi ba mu ko waxee benn xaritam kooku na ko nan ko miiri mu ne ko déet mu ne ko déet nan ko yaatal foofee la daje bi tàmbalee kon nag faaw libéré ko cantam boobaak léegi nag seen loxo musul dëkk ci dëkk bi ak lu soxlay dëkk bi ba ba borom dogal lii tey ñi nga xam ne itam ñoo sëtoo ci maam Matar Oman ak fufuwaay waay nekk noo lay sant te dee soññ te xam ne kat adduna dara dara dara dara néew fi lu dul sax ci ndigal suñu borom na ko mag ñi daan defe liñ xam ci mag ñi fi nekkoon de seeni ñax lañ daan dunde ak jàng alxuraan ak jàngale alxuraan ak di dimbalee ngir yàlla loolee day nun tànk yooyu lan fax ci fas yéene doxe te ñaan borom mu jàpp leen nu ci boppam Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee ci saayir bañ ko yëgee kenn njëkku leen fa sama bàyyi day xarum xarum tëbaskeem xanaa man mi nga xam ne seytaane daf maa teel a fëkk rek ma sànq yi waaye ku dul ku dul man daanaka woman ngam xar yóbbu Tuuba sama ndey ji ma jur itam yenn mbëpp ganaar ay yoon yoon doxe daaru ture yóbbu Tuuba yóbbu ko addi kon nag nun Sëriñ Tuuba rek la nam ni na na na na suñ suñu waajur daan doxee nan ko fexee doxe àdduna nag jaxasoo na fi may jaxasoo gam ne maara day taali waaye nag yan nañu sa borom sàmmal boppam di nu musal ci meram suñu borom ak lépp la koy waral te di nu ci seytaane ak pexeem ak ña ñoom àndal ak ña ko say dimbali yëpp yan nañu sa borom sàmmal bappam teg ci yoonu saatal mu saqi ma yóbbu nu ban egg te yóbbaale ngërëmal suñu borom yal na ni ko defal daraje Xaadim Rasuul noo ngi baal ak ñëpp di balu ak ñëpp ah wax ji nag jox dëgg yàlla dañ koy yemale foofu daal ah li ñu bëgg wax lépp daal rek trois vocal waaw trois vocal ñoo ngi ngi ñoo ngi sant ñëpp di sant di baal ak ñëpp di balu ak ñëpp yeneen sama borom boole jéggal yeneen sama borom taxawul boppam ba lu baax liñ ci bëgg mu defal ni lu kawee suñ njort waaw bismillahi irrahmani irrahim abal leen ma junjum yi te jébbal ma ab galeen ma jiinal ko ndaanaan lee di sëñ Moustapha Touré abal leen ma junjum yi te jébbal ma ab galan ma rëkkal ko ndaanaan lii di sëñ Moustapha Touré kajam njong la yët Jurbel sëtub lappe baa ngi nii imaam wars moo jël ndam yaqul ra ya doon wure Moustapha Xusayfe ngi lay nokkeel nelam tob bi yaa ji bu doon làmbi taj wi dàng mër yi fi doon bëre teral leen ko takkal leen ko raayaw ngëneel wile dafay garmi doon jàmbaar te baa yëmba yiw gore teral leen ko takkal leen ko raayaw ngëneel wile dafay garmi doon jàmbaar te ba yiw gore juróom fukki fóoreeg lëf ku leen daane doo ku ndaw sëriñ Moodu ñang sëñ daara sab sànni daal la bi macha allah sa aadaa bi laf na cab tabaaraka dootoo seen ku lay gëdd kay mere muñ ak farlu way pas-pas jom ak fulla ngom gu wér la as gor di jiitoo Moustapha dawoo yow dawoo xare jom ak farlu way pas-pas jom ak fulla ngëm gu wér la asgor di jiitoo Moustapha yow dawoo xare sëñ xaadim sa añ baa ngi nii sëñ xaadim dabal cant laak ngërëm bu lay soob nga ceeboo jën bu lay soob nga siim cere sa añ ngi sëñ xaadim ndabal cant ngërëm bu lay soob nga jën bu soob nga siim cere ndandam lii de say njiglaay du ubbik sa wunti yiw teraangaa ki wërsëg doon sa muur fépp foo taree na buur yàlla guddal fan wi dottil la wér gu mat ndam barke mu teqee wala sutura foo fare ci barkeb ka dem maa yomba dem Congo ak Gabon na buur yàlla fanqal ceeb Serigne Moustapha Touré lu ñiig njaaga bàmbaay njaag ne xuraanu moo ko ñàkk ba ruurul te gis ngeen meññatam tool bi ni mu lu ñiig njaaga bàmbaay njaag ne xuraanu moo ko ñàkk ba ruurul te gis ngeen meññatam tool bi ni mu fu ngeen jànge waa Touba ña xuuf paaya yóbbu ko fu ngeen binde waa Touba ña suul tablo ak kere sëriñ Fàllu sànqee ngee na ngeen wax ko ndokkele ne mooy buuru kuy sos daa di njukkeel si waa Touré sëriñ ngeen wax ko ndokkele ne mooy buuru kuy sos daa di njukkeel si waa Touré dikkaatoon nga am ay médailles yu rëy bu waa lappelangee foog nga fekkee fa ñuy cere ne quraan lañ ne quraanu doon ne ci seen maam ya jiitu woon waral tey fu kàngemboo ci seen penc lay bëree bisub mbokk ak mbokkoo ñu ñukkeel ci champion ku xëy am ci ak kendal sa bàkkaar fii lay fare ci mbootum ka jàngoon ali imraanu ak misaal na firdaw si doon dëkku sëriñ murtada ture mu fekke ko ay at at mu ñëw rekk dàqati te suñ way wi làmboo yiwu raw yoolu kuy xare te tuur bii di am chaque jour ne seen ceeb yi neex gi tax ma dénkaane saw sant nangeen ngeen woo ma Dame Touré <laughs> na tuur bii di am chaque jour ne seen ceeb gi neex na tax ma dénkaane saw sant ñu may woowee Dame Touré salaatan wa tasliman ala afdalil wara mahal ali wal asaabi nee leen ma naam Touré salaamaaleykum bismillah daw leen daw ko ngir jëmi sëñ Tuubaa waaye neex na lool ma بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نسلا خالدين فيها لا يبقون عنها هولا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 kontaan nañ ci suñu doom yi bu baax a baax suñu xol sedd na lool xam naa ne kon damay daal di njëkkanteeg waxtu wi rek daal di lim kàddu yu fi war a jóg rek bu ko defee ñu daal di jébal sëñ Abdou Akim kàddu gi bu ko defee bu noppee ñu mën a lim délégation yi bu mel ni kon ci jigéen ñi soxna Mame Bousso Touré mi nga xam ne moo jiite jigéen ñi dina fi jël kàddu pour cinq minutes Serigne Ndiaye nekk ci dëkk bi tamit di mbokk mu baax dina fi jël kàddu cinq minutes euh, ànd defar lappe dinañ fi jël kàddu cinq minutes euh, marsiya Serigne Moutara Touré boo xam ne sëñ ma xuja Touré moo ko fas yéene def euh, Serigne Cheikh Touré tamit social dina jël kàddu cinq minutes ngir mën a soññee ci social bi Serigne Alhaaji Touré mooy jël kàddu ci turu délégation yi nga xam ne teew nañ fi Serigne Mohamed Jaxate mooy wax ci ñi sëtoo ci nday ci Mame Makhtar Omana euh, muy cinq minutes Serigne Mademba Touré dina fi jël kàddu moom it pour cinq minutes kon xam naa ne dañuy joxe kàddu gi rek euh, Serigne Abdou Hakim si la dina ñu waxtaanal thème bi muy wa taxawanu alal birri wa taqwa kenn ko xam ne ndigal importance bi am ci lislaam ba Sëriñ Tuubaa day wax ne laa taf'alu shay'an bi ghayri idni fal idnu chartun fi qaboli shani kon loolu benn sabab la bi waral tabaski kon ñu leen ci ndokkeel bu baax a baax leen baalu xaq leen baal xaq ba ngi topp moo di eh, ñu ngi sant yàlla bu baax baax dikk gi ñu fii ci bërëb bu tedd bi di sant suñu borom feex bi mu too tawféex ba ñëpp ñëwaat kenn bañu manqué ñu naan murtala moom suñu borom yërëm ko comme ni ko suñu maam Baal waxee ndaje mi importance bi dafa am solo lool ndax dafa am dimension yu bëree bëri yu feeñ ba ci njëkk muy jokku mbokk siratu rahim te kenn ku ne xam ne silatu rahim ni ko lislaam fonkee ba tudd ko ci ayat yu baree bari xëy na jotaay bi xat du aajo ñuy détaay beneen bi ci topp moo di euh, siyaare ay bàmmeel kenn ku ne xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañ ko waxoon ne ab xol day xomaat ñu ne ko ab xol bu xomaatee lan moo ko wuññi yaar muy jàng ak siyaare bàmmeel te kenn ku ne fii yaakaar naa bu mu jumut fukki kaamil ak juróom yaar ak jàpp juróom yend jàng nañ ko fi ak bàmmeel yi kon loolu lépp day duggaale ci ndaje mi euh, beneen bi gi topp moo di euh, euh, ñaanal ñi fi jiitu ñu jiitu ñu jiitu loolu lu am solo la ndax Sëriñ Tuubaa day wax ci Masaalikul Jinaan ne isi doa yanfau maytan fil xubur wa yanfaul xayya wa yuju ujur kon loolu lépp day làmboo bi si xanaa ngir tënk rek moo tax loolu ay nit boo leen dajee faaw mu wax leen loo xam ne day leen jëriñ ci àdduna ak àllaaxira moo tax ñu tànnoon benn thème muy ataawanu ala bir wa taxawaa muy dimbalante ci yoonu yàlla moo tax ñu tànn thème boobu fas yéene ko ànd ak suñu mbokk al ustaaz al imam alima allama abdul hakim silla kon moo ñu fas yéene waxtaanal ataawanu ala bir wa taxawaa ñu ñaan mbokk yépp ñu diglu ko te teewlu ko di ñaan yàlla mu defal ñu ci allazina la al-qawla fayattabi'una ahsana kon ngir gañ di temps sëñ abdul hakim kon tax tafadal maskoora yàlla nag suñu borom defal tawfiq alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashaabihi alghurri almayamin wa man ihtada bi hadiyihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi noo ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di jiital ci loolu sunu kilifa yi nekk ci jataay bi te buñ ci tuddee ca bopp ba sëriñ Moustapha ture mu yóbbaale ña ca des ñëpp di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp su dee kenn ameel nañu ko di ñaan yàlla borom bi yàgg a fekke xew-xewu tabaski di ko ñaanit mu nangul ñu suñu jaamu ci bis boobu ak yeneen yeneeni bis ginnaaw nuyoo bi ak ziyaar bi euh, lu nuy guddalaat du ci am yaakaar naa mënees naa rekk daldi jublu ci sunu tomb waxtaan bi mbokk yi tànnoon ren ngir nu waxtaane ko waaye mbokk yi tànnuk tomb waxtaan yooyu nag nañ bàyyi xel ne lu am solo la ndax su fekkee dajeeg bokk yi ci dayo bu tol nii at ba at lay doon dafay jaadu ci biir lañuy ñuy waxtaane ci bokk gi waxtaane tomb sàngam tànn tam sàngam waxtaane ko ci gisinu diine nan la ko diine gisee wala nan la ko diine dégg rawatina nag su fekkee ne jullit bi am na pas-pas bu dëgër ci ne diine mooy kiy orienté dundiinam ci li ñuy tuddee ibaadaat ak muamalaat muy mbooleem xeeti jaamu yàlla yi ak jëflante yi kon ginnaaw daje yombut rawatina bu mel nii saa bu jàpp ndee pose la occasion la ñu nafaraat te fàttalante tomb sàngam bu itteel sunug dund en tant ay jullit lan lañu ci diine sant nu war koo def lan lañu ci aaye nu war koo bàyyi te diine xam nañ ne ñaar yi rek la mooy digle ak tere defal ak bul def dafa mel ni nag ren mbokk yi dañoo tànnoon tombub waxtaan wi doon li sunu boroom di wax ci téereem bu tedd bi ne wa taawanu alal birri wa taqwa te mooy lim ne dee leen di dimbalante dimbalante bu tegu ci ak mbaax ak ci ragal yàlla wa taawanu alal birri wa taqwa al birru lu bare bare ci tafsirkat yi tafsirkati alxuraan yi dañ koo firee ne mooy lépp lu ñuy def wala lu ñuy wax te am tam doon aw yiw doon lu baax mooy albirru lépp wax wala jëpp jëf joo xamante ne si yiw la ak mbaax la loola mooy albirru attaqwa ñu firee ko bàyyi ànd ak sori jëpp jëf wala wax joo xam ne safaanub yiw la moom lañ firee attaqwa kon Euh, ak taqawaa niñ ko waxee léegi mooy moytu ànd ak sori jëpp jëf wala jëpp jo jëpp wax joo xam ne safaanub yiw la mooy ak taqawaa te déggin woow li ci topp li topp ci wala taxaawunoo alal birri wa taqwa dana ko dëgëral muy bi mu ne wala taxaawunoo alal ismi wal udwaan bu leen di dimbalante ci bàkkaar ak jéggi fi leen yàlla limiteel ci seen diine limiteel leen ko ci seen bopp limité leen ko ci ñi ngeen bokkal di dund mbokk yi suñ borom subhaanahu wa taala comme niñ ko xamee ñun ñépp ci coobareem lañ fi ñëwee kon doomu aadama yi ci coobare yàlla lañ ñëwee ci kaw suuf kenn indi fi boppam kenn ku ne it mu am diir bu mu la fi àppal nga war ko fee def su jeexee da ngay dem fi mu toll ko amul seetlu da nga xam te yëg ne doomu aadama place bi mu occupé ci kaw suuf di dund diirub mu fiy nekk day mel ni da koo àbb rekk ak àbb la gu muy delloowaat keneen ñëw moo tax faatu gi du mën a ñàkk te loolu mooy cosaan waaye tam su dee am na ñuy ñëw muy ñiy juddu faaw am ñuy dem ndax dund gi ci kaw suuf mën a jàppandi faatu mooy li suñ bakkan sib te di ko daw waaye itam mooy liy tax dundu doomu aadama yi ci kaw suuf mën a am li ñuy wax continuité ba waxtu sobe yàlla mu jeexal ko ndax nu xaddar naa wa ma nahnu bi mas boo masbuuxiina ala an nubaddila amsaalakum ah sunub àpp ci kaw suuf dafa bariwut lu néew la yàlla nag tànnaloon ñu diir bu gàtt boobu yi ñu fiy am ñu nekke fi lum ñu dul jéppee yàlla suñu boroom lépp lu sant doomu aadama yi loola mooy seen njariñ waaye tam mooy seenu texe ci buñ ko jëfee doomu aadama yi ci ni leen yàlla binde amul ku mën a dem ak boppam moom cundum loolu yàlla jagleelu ko kenn moom rek moo ko jagoo moom yàlla dem ak sa bopp yow dong yàlla rek mooy ki ko jagloo mooy ko jagoo moo tax arab yi di wax ne al insanu madaniyun bi tabon loolu xam naa du soreek li ñuy wax naa nit nitay garabam kon ginnaaw faaw ñuy soxlaante faaw ko nit ñuy jëflante ndax ñuy mën a jariñante jariñante koo xam ne weccante lay doon weccante lay doon ci misaal yow mi bëgg ab tabax ngir jariñu ca cig dëkk dangay ngay génne xaalis jox ko mel ni Abdou Touré maçon male nga jariñ ko ca loola yow ngir mu am moom it lu mu yóbbu këram kon li nga xam ne ñëpp dëppoo nañ ci moom nga xam ne amul genn juyoo ñi gëm yàlla ak ñi ko weddi ñi baax ak ñi bon ñi am ak ñi ñàkk ñi xam ak ñi réer mboolem kuréel yooyu dëppoo nañ ci ne dimbalante diggante doomu aadama yi lu mënta ñàkk la faw lu ñuy jëflante faaw ñuy jëflante ci dimbalante ñoom doomu aadama yi la ñuy wuutee kay mooy melaw jëflante wa waaye moom faw ñuy jëflante loolu nag bu ci jullit bi digloo muy melaw jëflante woowu melaw dimbalante googu bu ci jullit bi digloo ci noppam te xool ci bëtam fi ko boroomam di joxoñ du réer du ñàkkit sens du réer du ñàkk sens te topp joxoñub yàlla mooy topp njubug yàlla gi te borom bi nee na ku topp sama njub gi doo sànku fii ci àdduna waaye itam doo texee di ëllëg àlaxira fa man ittabaxa hudaaya fala yadillu wala yashqa lii nga xam ne nag dafa lëkkaloog sunu dund muy li ñuy waxtaane muy dimbalante dafa am fu nu ci yàlla tënk muy alal birri wa taqwa cig mbaax ak ci ragal yàlla waaye jullit bi amul sañ-sañu jëflante bu tudd dimbalante ci lu yàlla gërëmul baatub dimbalante nag mbokk yi suñ ko waxee rawatana bi diina digle lu yaatu maanaa la garab la gu bari ay carak yi bànqaas daa bokk ci tëraliinu yàlla ci kaw suuf nit ñi rawante nit ñi dañoo rawante te loolu mooy soob yàlla mooy sunnatulaa fil ard mooy mooy li soob yàlla mu jëflante kook doomu aadama yi ci kaw suuf nit ñi rawante ci ay niveau yu wuute ci ay am-am ci ay man-man ci ay xam-xam ci ay sax xalaat loolu dañ koy gis ci bépp société di ko gis ci bépp jamono di ko gis ci bépp barab kii oomal kii ñàkk kii xam kii réer kii am kàttan kii néew doole kii yilife kii ñu yilif ko su mbir mi tëddee noonu nag dimbalante gi ñu yàlla sant dafay doon lu munta te ñàkk ngir dund gi mën a sotti nañuy bàyyi xel tam ne li ñuy tuddee ndigalul yàlla warteef lay doon foo déggee ndigalul yàlla rek xamal na loola warteef la ci jaam bi wala gàllu ñu bare bari dañuy jàpp ne warteef ci buntu ndigalul yàlla mooy lu mel ni julli xëy na wala azaka wala koor mel noonu yooyu ñuy tuddee ay farata yooyu mën naa doon ndey warteef ginnaaw bu gëm yàlla jàllee surtout lu mel ni julli waaye yu dul ñoom tam danay tudd warteef danañuy tudd ay warteef suñ borom di wax ci alxuraan ne inna allaha ya yaamuru bil adli wal ihsaan yàlla dafay digle ak maandu ak rafetal loolu warteef la kon maandu ak rafetal warteef la yàlla waxaat ne inna allaha yaamurukum an tuwaddu lamaanaati ila ahliha yàlla da leen di digal mi ngi leen di digal ngeen jooxee kóllite yi ci seen borom maanaam ngeen bañ a war seen diggante ka leen wóolu loolu warteef la yàlla nee na wa linnaasi husna wax lee nag nit ñi lu rafet loolu warteef la yàlla nee na wa awful la isaa kiltum yéen ñiy jaay su ngeen dee natt su ngeen dee peese na ngeen matal bu leen manqué la ngeen nat wala la ngeen di peese loolu warteef la yàlla nee na wa taawanu alal birri wa taqwa dimbalante leen ci mbaax ak ragal yàlla loolu warteef la moom it kon ndigal lu bàyyi koo ci yàlla jëm ci jaam yi warteef lay doon ci ñoom ñu jëfe ko aaya bii nag di wa taawunu alal birri wa dafay topp doomu aadama yi rawatana jullit yi ak fuñ man di nekk lëj-lëj yita lijjantiku yëpp mbokk yi doon na mën a lijjantiku wala lu bari lijjantiku ci bu doon te jëfees na li yàlla sant nu ci aaya bii suñ borom subhaanahu wa jox na la daraja jëfandikoo ko ci dimbale kuñ tooñ yàlla jox na la xam-xam jëfandikoo ko ci xamal ki xamut te bëgg a xam yàlla jox na la alal dimbaleel ki ñàkk dimbaleel borom aajo yàlla jox na la am xel mu rafet laabireel ki nga xam ne tëjalu la ay buntam ci mbir moo xam ne sag laabire dana ko amal njariñ ndax addiinu an nasiha ci mbir moo xam ne sag laabire dana ko ca amal njariñ niñ ko waxee addiinu an nasiha dimbalante mbokki jullit yi yemul rek sax ci doomu aadama yi ba ci ndundat yi gën a xeebu ci sunu gis dañuy dimbalante ci seen biir ngir am dund gu teey ku jàng ci alxuraan xissatu yonte yàlla Suleymaan ba nga xamee ne moom ak ay soldaaram ña ngay dox jub aw xur fekk ay xorondoom nekk ca ba ko wenn xorondoom yëgee dafa gaaw informe yeneen xorondoom yi ci des xaalat namlatun yaa ayyuha namlu udxulu masakinakum laa yaxtimannakum Suleymaanu wa junuuduhu wa hum laa yashcuruun wenn xorandoom moo gaaw informé yeneen xorandoom yi na leen yéen xorandoom yi gaaw leen dugg seen dëkkuwaay yi balaa Suleymaan ak i soldaaram ñëw di dëgg ci seen kaw di leen moñoxee te duñu leen yëkk loolu dafay dugg ci buntu dimbalante ak li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa mbokk te hadis ba nee na woon laa yuminu ahadukum xata yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi kenn ci yenn ak ngëm yàlla du mën a mat lu dul lim bëggal boppam la bëggal euh, moroomam jullitam mu ngoog yàlla suñu borom nag ni mu ñu soññ ci dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla noonu la ñu moytuloo ñuy dimbalante ci safaanu mbaax ak ragal yàlla bul dimbalante ak sa mbokk mbukk yow yow jullit bi ci jël àq jàmbur ci jël loo moomut waaye itam bul dimbalante ak sa mbokk ci toggoo loo xam ne dalay soril yàlla sa boroom loo xam ne bàkkaar la loo xam ne ak mooy yàlla la bu ci dimbalante kenn yonente bi alayhi salaatu wasalaam daa waxoon ne unsur axaaka zaliman aw mazluma dimbaleel sa mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee am ku ne ko yow yonent yàlla bi xam nañ dimbale mbokk de suñ ko tooñee waaye kay li ñu comprendre mooy ah su su tooñee moom xam nañ dimbale mbokk suñ ko tooñee waaye liñ déggu dëgg-dëgg mooy maanaam su tooñee moom mu ne nañ koy dimbalee bu tooñee mooy ñu xamal ko ne ko yaa tooñ ànd ak moytuloo ko tooñ nag yonente boobu alayhi salaatu wasalaam moo ne ñu ba tey al muminu lil mumini kal bunyaani yasuddu baaduhu baada jullit ni mu demee moromam jullitam dafa mel ni ni birig yi tabax demee noonu ñu jàppaloo birig bu ne dafay dëgëral moroom ja jullitam noonu la war a def mbokkam jullitam yoonante boobu moo ñu waxaat ne al akul aqul muslim laa yazlimuhu wala yazlimu ba addis ba jeex nee na jullit jullit mooy mbokkam bu mu ko tooñ bu mu ko seetaan mu teg ci nag képp koo xam ne taxaw nga ci sa aajo yi mbokk yàlla dana taxaw ci aajoom waaye tam ku fekk jullit bu am njàqare nga teqale ko njàqareem loolee yàlla dana ko wuññil njàqare ëllëg yowmal xiyaam ci njàqare bis penc ba yonente bi ne ku suturaal ab jullit yàlla suturaal ko bis penc wa man satara musliman satarahu llahu yowmal xiyaama dimbalante mbokk yi ci mbaax ak ragal yàlla gi ñuy waxtaane suñ dee teqale mën naa doon ñaari xaaj am na dimbalante boo xam ne weccante lay tudd weccante nga jariñ ma fii ma jariñ la fee comme ni ma ko misaale woon sànq diggante maçon bi ak kii tabaxlu wala kiy jaay ak kiy jënd wala kiy def transport ak ki bëgg dem wala mu bëgg yóbbu ay bagage ak ak yu baree bari façon dimbalante boobu dafa doon lu munta ñàkk kenn amul pexe ci fànq ko ndax man nga ne mooy kenn yitee dund gi su amutoon dund gi moo dul mën a sotti mu amit dimbalante boo xam ne mën naa bañ doon weccante bu ñuy jëmmal ñu di ko gis waaye moom nag mooy dimbalante bi gën a jëmmal gën a wane tedd ngay jikko yi gën a firi itam alal birri wa taqwa gi ni yàlla wax ñu tënk ci sunu dimbalante yow mi yàlla jox alal nga gis boroom aajo ju alal di lijjanti nga jëfandikoo ndigalul yàlla dimbale jaamu yàlla boobu ci aajoom ba mu faju yow mi am xam-xam nga gis ko ko soxla di ko sàkku nga xamal ko te yàlla tax nga jëfandikoo ndigalu yàlla dimbal ko xamal ko te yàlla tax yow mi am kër goo dëkkewut wala néeg boo dëkkewut gis ku mu rànke fu mu dëkke nga jëfandikoo ndigalul yàlla ci dimbale ko mu dëkk yow mi yàlla baaxe xel mu rafet xalaat yu jub am ko ci yow ak laabire nga jëfandikoo ndimbalul wala boog ndigalul yàlla ci dimbale ko ci say xalaat ci say jubbanti yow mi asaka war nga jëfandikoo ndigalul yàlla ci génn ko jox ko seen boroom façon dimbalante yooyu ci wàllu social ak moral yooyu ñooy njob baxtalu jikko yu tedd yi mën nañoo wax ne sax façon dimbalante bi nu njëkk a leeral su bi nekkul ca wetam dund gu nax la nit ñiy dund mën ngaa wax ne sax lu baree bari li ñuy jànkoonteel ci ay fitna ci ay jafe-jafe ci dundin wi ñàkk jafe ñàkk a jëfe boog xeetu dimbalante gii ni ñu ko diine sante sabab na ci lu baree bari waral na ci lu bare bari dimbalante bee nu njëkk leeral ni ñu ko waxe woon mbokk yi sañee su koo bañ faw mu mu am ci diggante nit ñi diggante jullit di ci seen biir diggante yéefar yi ci seen biir léeg-léeg gi sax diggante jullit ak yéefar lay doon ndax mooy tax dund gi mën a sotti te it dimbalante boobu ba tey boobu njëkk a wax boobu nga xam ne weccante lay doon am na sew-sew bu ci nekk mooy jullit bi mën na cee bañ a am tuyaaba mën na cee bañ a am tuyaaba doonte rafetal na nam nam doon jëflante kam ko seqal waaye la ko cay xañ tuyaaba mooy jamono ya muy jëflanteeg ak dimbalante kam ko seqal su dee dafa rek bëgg a lijjanti ay intérêt bëgg rek ay aajoom faju loola rek rek rek lay lijjanti hmm? su boobaa loolu moom du ci am tuyaaba xëy na aajoom mën naa faju nag la muy lijjanti te mën naa lijjanti ko waaye nag bu fekkee loola rek rek moo doonoon ab jubluwaayam loolu du ci am tuyaaba lii ñu doon waxtaane muy ataxawoon albirri wa taqwa yàlla na yàlla yombalal nu ko suñu kilifa yi yàlla yàlla yàggal leen ci suñu kanam may leen wér yàlla yàlla barkeel mboolem yëngutu yi képp ku yëngutu ak loo mën di yëngutu rek bu dee lu baax yàlla na la defal barke asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Lappé Touré ngi leen di siyaare tàmbalee ci borom lappe muy Baye Moustapha Touré di ko ñaan yàlla yokk fanam yokk wéram yokk jàmmam ak xéwalam di ñaanal xalifa euh, Maxtaar Umaane muy sëñ Balla Xuja Touré di ko ñaanal wér gi yaram di ñaanal sëñ Abdou di kilifa gi sëñ ma dikke ñoom ak sangu yu baax yëpp di ñaanal jigéen ñi di leen gërëm ci euh, teraanga ji ak accueil bi ak ni ñu ñëwee ci baas bi di jéggulu ñëpp nag waaye di sama kàddu ma koy yëkkati ci ahlu Touré Mbondu ànd ak xalifa ba muy borom dëkk bari sañ Bàcc Touré ànd ak rakkam sëñ Momadou Lamine Touré sëriñ Ousseynou sañ sëñ Moustapha Touré sëriñ Abdou Touré sañ Matar Touré ak man mii. ñu ngi leen di siyaare yéen ñëpp ci kontaan lool ci yëf yi ni mu demee ndax euh, mbir la moo xamante ne bii euh, ni ngeen ko defee ba ñun ñu wàll si ci ngeen yëgal ñu ko ca ngeen def koy ati at. ci yàlla def daawuñ ci yëg dara ndax euh, waxukaay yi bariwutoon nii ngeen nekkoon ci di ay ñetti nit ak ñaari nit ba mu toll fii léegi kilifa yi di ko def ba nim ñëwee ci seeni loxo ba ni kuréel bii nga xam ne moo ci juddu ci sëñ Abdou jiite ko ñëw ngeen boole lépp mu nekk benn lépp rafet loola ñu ngi ciy kontaan lool cee ñaan yàlla pénc yëpp yàlla nañ ci bokk wuyu si ci barkeb Xaadim Rasul bu loolu wéyee nag damay ñëw ci sëñ Abdou Hakim lii mu doon wax rek ma jël ci tuuti muy mbirum uh, jikko ju rafet akuk mbaax akuk dimbalante foofa rek laay coof ndax guddi na ca uh, yitte yi bari na loole la ma cay dikke nag uh, muy loo xam ne naqari na képp kuy sëriñ daara képp koo xam ne nit ku baax nga ku nekk ci réew mi ca ñoom ñooy réew mi ñoo moom réew mi ñoo réew mi muy niti alquran yi sëriñ si li nga xam ne mooy dal ci seen ndodd ci at yii paase wala fan yii paase muy toujours ñuy dégg rek sëriñ daara di def ay njombe wala boog ñu tudde leen sëriñ daara ca sëriñ daara yi leen kenn mënu leen cee génnee ndax mbir la moo xam ne yaatu na ca muy tuuti nag ndax ñi ci ëpp ñoo gën waaye ñi nga xam ne ñoo ciy siiw ñaare ñoom ñooy def njombe yi waaye ñi baax digg digg kenn déggu leen ña nga ca la leen war waaye nag benn pomme de terre ci saako euh, pomme de terre xaw ma soble benn bu nëb rek mën naa yàqu saako ba ngay sànni saako ba ca déedéet bu mu demee noonu nañ ko sippi sànni fële yërmaane joojee nag dama ciy joxoñ ay kilifa yu mag yoo xam ne ñu ngi ci réew mi di boroomi xam-xam ñu war di wax ñu mel ni sëñ ma dikke ñoom ñii tey sëñ xaadimul xuraan ñoom ñii sëñ xaadimul umma ñoom sëñ Abdou Latif yéen ñëpp mënumaa lim waaye yéen ñëpp da ngeen am sas woo xam ne euh, bu leen téye seen bopp mukk bu leen ragalit ku leen joxoñ ndax toolub lislaam bi niti diine yi ñi ngi bëgg a am gàcce dem nan ba fii mu ne bu dee ndakaaru gee sol fa xaftaan wala yor fa kaala léegi tey mu nekk gàcce ndax toujours ñi ngi dégg ñu yor loolu di def njombe yoo xamante ni bi ca ñoom ñu yàkkamti lool defet bi jëm si ci ñun cën ëpp ci réew mi nag nga xam ne réew mi sax mën naa tege ci suñu loxo waaye suñu càggante ak sunu ñàkk yeesu suñu ndaw kon sañ ma dikke man dama leen di soññaat di leen fàttali ci waxukaay yu bari yii ngir yàlla ak yonente bi bu leen ragal waxi nit ñi bu leen ragal ku leen jam lislaam jaa ngi doy na waar lool naat na bu doonu tool ma ne dugub ji naat na lool palpal ah, na waaye picc yi nga xam ne ñooy lekk nag dàq leen ngir yàlla ak yonent bi loolu war si na koo man takk say pot di dàq picc yi ñuy naaw ndax kat ñi yàq lislaam ji bari nañ te ci biir lislaam la ñuy tuddoo waaye fi mu ne daal gàcce am na gu rëy rëy man boog dëgg dëgg damay toll foo xam ne sax pour ma jaar fa wala ma wax fa duma ko ñemee ndax ni doon ragale borom pantalon yi ak borom kab yi noonu la ñu wëlbatikoo bëgg a ragal borom kaala yeeg borom mbaxane yeeg borom alxuraan yi ndax defet yi ñuy def fi mu ne bari na bu doon benn sax ëpp na bu doon benn sax ëpp na ñaaw na kon sëñ ma dikke wax leen ngir yàlla ak yonent bi wax leen bu ngeen ko deful sama classe yi nga xam ne amuñu xam-xam ñooy wax rek ca saa yu ñu waxee di waxi toj-toj kon yéen ci gàgganti ngeen di dëkk kon nag teel leen a wax ngir yàlla ak bi kon daal lii laa ne woon naa ko wax boole ko gërëm leen. gërëm mboolem ci kàddu ñi nga xam ne ñooy ñoo wuyu si ma mel ni ku yor seen kàddu te matuma ko ñëpp sant nañ leen gërëmu nañ ndax a taawunu alal birri wa taqwa bu fekkee ne mawduu bi mooy a taawunu alal birri wa taqwa te mooy dimbalante ci mbaax ak njub loolu dafa ñëw ci waxtoom kon daanaka rek li ca sëñ Abdu wax mën naa ne nun ñëpp déggandoo nañu ko la ca des mooy mettre à l'action te mooy jaar fañ war a jaar te defe ko noona ndax andi na ci ay adilla alquran andi na ci ay adilla hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi ci ay aqwalu salaf te mooy waxi boroom xam-xam yu baax ya kon loolu daanaka du jar commentaire waaye danaa indi rek lu gàtt loo xam ne euh, ku tiitut ku nekk ci jamono ji ñu toll amoo xel wala amoo gis-gis walla say bët xippiwut te li ko gën a waral mooy li ñuy tuddee xadamu ihtimaamu xifsu turaasu saalihin te mooy ñàkk yittewoo ndonal gaa yu baax yi ñu ñu bàyyee woon ñàkk gu ñu ko ñàkk yittewoo ak ñàkk ko ñàkk fonk waral na drapage yu bari yoo xam ne nii fi moo am mbokk yi jamono jii ñu toll ray gi kenn xamatut nu mu toll jàpp nañu ne sax léegi rey lu ñu légaliser la njaalo ci jigéen ñi jàpp nañu ne loolu lu war a am la te doonatut lu lu ay kilifa di ay doomi soxna di ay nit ñoo xam ne ay repère lañu ñoom ñooy woo mbooloo ba mbooloo wuyu leen ba ñëw ci seeni tànk ñu jël jigéen ñi di leen jaxasoog ñoom ca namu leen soobee sëñ Tuubaa waxoon nañu ko isbaana annama suyuqu isbaana jahran annama suyuqu hada damanu jollohum fuququ sëriñ li ëpp ci ñoom dañuy woo nit ñi ba ñu ñëw yaa ngi ciy dégg fan yi rek yu doy waar yoo xam ne kenn mënu koo tudd nit ñoo xam ne dañuy woo ay nit ci diine ak turu diine ba ñu wuyu leen ci diine ñu di leen jëfandikoo ca na gën a ñaaw loolu dara gënu koo ñaaw beneen ba ci dolli ko mooy abandon bi nga xam ne moom la parents yi di abandonné ci doom yi nga xam ne moom la ñu jur kenn nangootu leen a contrôlé koo wax mu ne la njaboot gi njabootu kanaara la dañu leen di jiital topp ci seen ginnaaw loolu loolu qaayida bu yàqu la li ma noon a am mu waroon a am mooy njaboot gi ñu yar leen te it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp ju bépp doom kullu mawludun yulidu ala fitra doom ju mën a doon rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo jur ci vierge dara nekkul ci moom fa aba abawaahu ñaari waajuram yu hawwidaanihi ñoo koy defub nasraan aw yu majjisaanihi wala ñu def ko majuus kon ñoom ñoo ko war a yar def ci moom diine wala responsabilité boobu ëllëg dana ko rendre compte diggante ak mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa mooy xudwa huwa Sëñ Tuubaa wax na ko huwa nabiyu wa rasulu wal imaam wa huwa alxabibu wal imaamu wa dalil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy dalil danaa li benn xissa bu gàtt dañ tënk ko foofu dafa am xale lu góor ci ban ci ci ci ci ansaar ñu daan ko wooye julay ulama u xam nañu kan moo di julay biib nit ku ñàkk solo la woon sëriñ si mënatuñoo digérer nit ku ñàkk solo amutoo amutooni sër xamuñu juddoom xamuñu fu mu bokk xamuñu askanam mu néew doole amut alal di taxawaalu di naan ci deq yi di naan ci ndox yi di lekk ci sën yi di lekk ci poubelle yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam récupéré ko dajale saxaaba yépp na leen kan moo koy may jabar kan moo koy may jabar ñu ne ko ki ngay wax kumu mu ne moo di julay biib ñoom kenn xamul woon aw turam parce que ab dof lañ ko jàppee woon ba mu ko proposé na ko ndax doo denc mu ne ko ndax ku ne man koo xam ne xamuñu askanam du lekk lekk gu baax du tëdd fu baax du sol lu baax ndax kenn dana ko may doomam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wane ne njabootit koo jaboote ku nekk bu la digalee tamit ku war a digle buñ la digalee danga ngaa war a nangu yonent bi sallallahu alayhi wa ko ci génn kër ne ko boo demee ñooñee nañu la dencal seen doom ba mu ñëwee ba mu ko waxee bàyyi ba dane ko déedéet nga gis doom yi nga gis recul bi am ci parents yi ne ko suñu doom ju jongo ma ji kat yaakaaruñu ne dañu la bëgg au lieu que ñu ñoom ji seen responsabilité waaye dañ suñu doom ju jongo ji yaakaaruñu ne dana la bëgg waaye nga gis ne gonu yu jigéen yi nga xam ne ñoom bu digal jógee ca kaw yàlla yàllaa ko bu yonentam képp lañu ñu ciy xool xale bu jigéen bi bi mu xamee ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la juley bi bàyyi ko daf ne ku ma ko may ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma sëy ak moom te boobu moo dàq ci banni ci moo dàq ci ansaar ñu may ko ko fi ñu ko ko mayee ñu dekkalaare guerre ci benn bis bi julay biib dal di gàddu gunta xam akuk fittam dem ca xeex ba rey fa juróom-ñaari nit ñu dal di koy rey avant muy consommer mariage am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabal saxaaba yi ne dem leen ngeen xool ko ba ñu ñëwee ñu jël mbooleem shuhada ya fa nekk yépp waaye gisuñu ko ndax bàyyiwuñu ko xel bi ñu ñëwee mu ne leen waa ana ka des ñu ne ko des mu ne julay bi bi ñu ñëwee fekk nañ deret jàng ko sàng suuf saa ngi dugg ci gimiñ gi ci bopp bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te léegi li xew ci suuli néew yi léegi gis nga ne sëriñ si bu ñuy suul ba tàmbalee suul dañuy reculer jël seen mouchoir teg ci seen kanam dem fële yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jël moo jël boppam bopp julay bi teg ci kawam jël kaalaam fomp ko jël boppam foon julay bii bin dal wax ne gaaw leen denc ko ndax xuur la iini yaa ngi koy njëkkante loolu danga nga ciy déggee ne ndekete kilifa dafa war a taxaw taxawaayub kilifa ki ñu yilif mu taxaw taxawaayub ku ñu yilif waaye jigéen ñiit ñu xam ne lu ñu doon doon gone doon wut ngërëmal yàlla mooy seen mbir suñu borom tabaraka wa taala nag waxoon na ne dañoo gaaral kóllëre inna aratna al amaana dañoo gaaral kóllëre waaye nag ba ñu ko gaaralee montagne yi ak ñëpp dañoo bañ nit moo d'accord ne moom da koy nangu da koy da koy gàddu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki dëkkandoo yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare di leen balu xaq te di leen bal xaq di nuyu jataam leen yoo bi ci Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne tey jataay bii nu toog di barab bii di lappe sunu borom jox ko ci Serigne Abdou nga tiraanga ju sëkk. ak war ma ak àq joo xay ni da ko doon sàmmonte ak bokki taalibe yi ak bokki dëkkandoo yi kon loolu sëriñ Bassirou sëriñ Abdou Latif sëriñ Cheikh nekkal ko fi tey mu yabal fi doomam sëriñ Abdou Lahat ak sëriñ Abou Mbacke moom sëriñ Sidou Mokhtar kon ñooñ ñoo ngi leen nuyoo bi foofu lañ koy tàmbalee di leen ko jottali di leen ñaan yàlla sunu borom ñoom ñoo ñu jiitu sunu borom fekk leen fi yërmaan yërmaaneem ak ndimbalam nun ñu fi des it sunu borom bàyyi nu fi ak xéewalam ak muccam te sunu sunu mucc nu teg sëñ Balla ko joturé mi nga xamee ni mooy kilifa euh, euh, mbooloo mi daje fii tey foofu nag dinaa fi def ak taxaw lu bu gàtt dama koy tënk rek ndax am na kàddu yoo xam ne waxan naa ko bañ naa alaaji li mu wax dama noon gone di wutal mag kilifa waaye keroog bi ñu waree ba suba ñu tase kër sëñ Moustapha Touré ñuy waxtaan ba sëñ Moustapha Touré mii tey di bàyyi sëñ Balla Khoudia sëñ Mendu Touré di bàyyam sëñ Moustapha wax ca jataay ba ne benn xel benn xew bii rek suñ ko defee muy xewu Maxtaar Umaane dinaa nangu lépp waaye sëñ Balla Xujum mi nañ xam ne léppam fii la ko fii def sama kër bàyyi si ko defee kon cër bii moonu mag cër bii ñu ko joxoon nangul nan ko ko ba ga sëñ Moustapha Touré nangulee laa ko nangul ndax man ci kilifteen day wii kon man baatu kilifteen wéronga laa du lijjanti fexe naa ba mu te ko ci woon te ko ton loolu maa ngi ci maa ngi ci sant yàlla li doole di ko mooy xale yi nga xay tey ñoo doon jàng alxuraan di ko fi tari ah war xel bu baax ci ñoom bàyyi sunu nga xëy ne war nañoo toll ci ñoom a jàng te bàyyi suñu xel ci njaboot gi nga xëy ñoori njaboot nan leen leen di sàmme ba tax bu ëllëgee seen alxuraan ak seen diine ak seen xam-xam ñu mën koo garder ba bu ëllëgee du yàqu liy toll ndigu noo bokk bàyyi waaye sama doomu bàjjan la mu wax joo xëy ni daanaka dara mun ko mun cee dolliku li lislaam digle lépp wax na ko moog sëñ euh, moog sëñ Madické Touré Moustapha moomee jur Muxtaar Muxtaar mi tax ñu daje fii tey maam ci tënk maam fi ay pénc yoo xëy ne moo ko sañ te ñu bari xamu ko ba mu sañcee càqami càqami ma mag la bi fukki ak juróom ba mu càq mi diggante mi ak kër ngaana maanaam diggante ak tàmbadu foofu am na fa diir am na genn daqaar ku newoon ci yoonu foofu la nekkoon ba mu fa jógee mu ñëw fii ci sanc foofu la njëkk a nekk bi mu fi toogee diir sunu borom xamal ko mu joxoo fa dem fee ñuy wax daqaar ma binti mu nekk diggante lappi ak kër ngaana ba mu fa toogee diir mu jógewaat fa ñëw fii sëñ Cheikh def too këram bi tey muy muy tooli kii yi mu toog fi diir soog daal di dem bii ñu wax xewar julikaay nekk ba mu jógee xewar julikaay mu dem fu ñuy wax kàmm ak maxar ma ngi ca penku bekk bi ba mu jógee kàmm ak maxar mu wëlbati ko waa dikkaat da euh, euh, daqaar tan toog fa biir jinne ja fekk ko fa ne ko delluwaatal fa nga newoon ma soog a dellusiwaat fii fi sanc foofu saaku ja ak déema ko jaag ma juxu ja ñeenti binc yi nag bisu keroog lañ teqali koo kenn ku nekk ñëw nag ku ne dem sanciwaat am penc moo waral penc yi teqali ko waaye nii la demee woon